asalaamaaleykum mbokki téléspectateur ak internaute prestige tv ginnaaw bu ñu leen nuyoo nag ñu ngi leen di jaajëfal ci seen fidélité comme ni niñ koy defee saa su ne tey bu ngeen ñu gisee ñu ngi fii ci seen émission euh, prestige éducation prestige éducation nag tey daf leen indi lu am solo lu mu tuddee grande rentrée grande rentrée nag bu ngeen ko déggee ngeen xam ni école mu ngi bëgg a ubbi jàngalekat yeeg élèves yëpp ñu ngi waajal ngir mën a dellu ci école yi ci kaw loolu nag tey euh, prestige euh, tv indi leen lu mel dajale fi ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteurs yi ñi ëmb éducation yëpp ngir ñu mën a waxtaanee éducation ak li ko ëmb yëpp ci kaw loolu nag weetuma sama plateau ndax maa ngi ci ànd ak sama doyen Pape Alsane Beng. jërëjëf euh, jëmb euh, ñu lay fay di la nuyu bu baax a baax di la fay di dalal tamit ñi nga xam ñoom ñooy suñuy gan yi euh, dañ koy tàmbali nag ak ki nga xam ne moom moo nekk ci sama càmmoñ kooku nag directeur d'école muy Boubacar Sall sëriñ Boubacar ñu ngi lay nuyu di la dalal. Salam alaikum, euh, Mbengue euh, ñu nous, leen di nuyu plateau bi Nathan ak qui wuy ma le plateau Nous sommes soxna ici d'abord euh, présentation Je mu def bon man c'est monsieur Boubacar Sall euh, je suis directeur de l'école élémentaire Mourde, IFTS ville mais en même temps aussi di yëngatu du syndicalisme du secteur général de l'UDEN au niveau de Thiès. Euh, membre du G7 euh, donc euh, di am kontaan lool ci teew ci plateau bi. suñ jógee ci yow nag monsieur Sall directeur dañuy jox suñu jigéen moom it mu wax ñu mooy kan madame Thiam. waa salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nekk ci plateau bi di gërëm waa Prestige di gërëm bu baax femme madame Jëmb mii def présentation bi. man maa ngi tuddoo madame Thiam ñu gën maa xam ci madame Tigida maa ngi nekk coordination régionale de la petite enfance et de la case des tout petits waaw di sant yàlla bu baax di leen sant ci confiance bi ngeen am ci man ba invité ma ci plateau bi maa ngi nuyu tamit sama naataango yi ma toogal ci plateau bi eh, di ñaan yàlla ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp lu ñu fi wax yàlla na jëriñ éducation au Sénégal jërëjëf madame euh, ki ci top nak moom moo représenté IF, muy inspection éducation formation di Boubacar Diallo. sëñ Diallo ngi lay nuyu wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yépp di gërëm madame Diomb ak monsieur Sène di convoqué bi ak un moment bi mu ko convoqué di moment bu opportun parce que nous sommes à la veille de la rentrée donc xam naa ne li ñu si jublu rek mooy passer une bonne heureuse année scolaire au bénéfice de nos enfants. donc euh, dans le cours du débat peut-être dinañ développé waat mais man maa ngi tudd kan jàllo inspecteur de l'enseignement élémentaire à euh, l'IEF de Thiès-Ville. Thiès-Ville merci beaucoup. jërëjëf Diallo euh, suñu ndijoor am na koo xam ne tamit moom xàmmee nañ ko muy Ibrahima Koumbassa moom seen di syndicaliste la dend ak bu Jara Ibrahima Koumbassa yow la ñuy jox kàddu gi nga wax ñu yaay kan ak nan ngay taxawee ci biir éducation. nuyu dina leen remercier monsieur Mbengue ak Njëmb ngeen may occasion pour ñu mën a euh, fekkee bës bi et di gërëm waa prestige groupe prestige yëpp e di gërëm borom borom prestige donc euh, euh, télévision la télévision, de euh, une fierté pour tous les soient. donc on est en train de vivre la télévision de manière locale on est une émission qui est composée au niveau national am une télévision au niveau local loolu vraiment ñu ngi leen di gërëm ñu donc man suis ngi Ibrahim Ibrahima comme l'avons dit je suis coordinateur régional du QSEMS donc professeur d'histoire et de géographie. Ah qui nekk sa nag la monsieur Bou Bou ñu lay lay bu baax di sant aussi sunu bi euh, vraiment plateau bi fekk fii samay xarit samay collègue nga xam vraiment liggéey na leen lu di ko sunu inspecteur de la formation ma Togal toogal IEF euh, di nuyu pas prestige bu baax parce que aussi ni sama collègue bi waxee légui prestige nek na télévision bo xamné bi bon mi ngi mi ngi jëmmal ties mi ngi liguel ties bon amna ci lo xamné sax xëy du waxu plateau bi wayé gis nañ fi lo xamné li luy luy développer ties donc ñu ngi leen di gërëm bu baax ci invitation bi ñu rafetlu vraiment cette. Euh, ce plateau là man maa ngi tudd Bou Diarra euh, nekk euh, membre COSYDEP euh, nekk aussi au CM R100 comme surveillant mais tey casquette bi mu fi ñëwee mooy casquette instituteur laa fi ñëwee.

Maniko ko dina neex inshallah voilà di leen remercier yéen ñi nga xamanteni ni yéen a ci fi ci sunu woote di rafetlu présentation aussi mais monsieur Mbengue sans plus tarder dañuy démarrer sunu débat ak li nga xamanteni mom moy le bilan de l'année scolaire 2018 2019 gis nañ ne nak il y avait pas de perturbation mais les résultats yi nga xamanteni am nañ ko euh, ci bac ak BFM étaient peu satisfaisants euh, nan ngeen di expliquer loolu ñu commencer par. Euh, euh, voilà donc euh, je euh, question c'est une année scolaire bu apaisée amul ben perturbation perturbations, grève donc les cours se sont déroulés normalement amuñu ben perturbation mais dañ gis résultat am au niveau du bac 37,22% au niveau national. Donc, euh, et au premier tour, on n'en avait que 14%. Si second tour, l'année 37,22%. franchement, donc, tout par rapport aux années passées. Et puis même, 37% à lu investir eh, éducation dans c'est presque une catastrophe donc l'Union est que vraiment le système il est malade responsabilité est là la responsabilité elle est partagée parce que nit ñi tok nañu ñun alerté nañu état bi yag na buñu politique guana xam nga système éducatif s'opposer à acte fruit c'est dans une dizaine d'années voilà une vingtaine d'années nga koy mëna récolter am nañu fi système guana si élémentaire ñu ne ñëpp pas guana ci gis nañ au niveau élémentaire ñeneen di am sa ay deux de moins, ñuy jall nous avons entré en 6e, nous avons entré en 6e. Avant COP, euh, entré en 6e, nous avons fait COP. Nous avons inversé, les euh, CFE, nous avons fait que entré en 6e. Nous pas dit entré en 6e, nous n'avons pas dit 6e. Nous avons fait 6e, nous avons un diplôme. Nous avons fait Nous avons encore nous zéro redoublement. Programme, zéro redoublement. Nous avons fait nous avons encore ñu obligations encore euh, obligation scolaire de 16 ans mun avons leen dàkk benn élève ñu bay système bi donc système bi dem na be finalement amna ay goulot d'étranglement xalé produit egg au niveau BFM et au niveau terminal le niveau était faible Nous avons ñu constater vraiment des résultats faibles té te loolu sur le plan pédagogique mais nous encore sur le euh, responsabilité parents

mun nga exploiter sa téléphone mu jox la ko loo laaj téléphone jox la ko mais malheureusement suñu xale yi gis nga ñoom foo moo leen si neex donc parents yi tamit ñi te loolu tamit xale yi du école rek et école mun na wax les portables sont interdits mais xale yi kër ga les parents ont démissionné donc c'est tout ça moo mun a mun a justifier loolu. Ah, man <clears throat> dinaa ko dëggal mais dafa am aussi loo xam ne lii fokk ñu leeral ko dañu nekk ci secteur boo xam ne bii tout le monde est acteur et surtout l' éducation ñëpp acteur lañu bien que am na ñoo xam ne c' est des professionnels de l' éducation mais parents yi ay acteurs lañu l' état est acteur ñoo dem ci école bi fa la ñuy mottalee mën naa wax ni mu wax léegi léegi dëgg la parce que am na une démission réelle boo xam ne c'est constaté que ni parents yi rôle bi ñu waroon jouer réellement jouer tuñ ko ci bu ñu comparer li doon am ak li am léegi changement réel moo ci am bu njëkk parents yi aussi bien dans la maison que dans la rue dañ doon jouer son rôle d'éducateur maintenant loolu amatul muy ben. bi ci top, mooy école bi si li mu wax léegi ci élémentaire bi ne xale dañuy jàll dans le moyen mais souvent de am niveau moi je dis que ni xale yi niveau à l'élémentaire mais malheureusement le pont qui devait y avoir entre l'élémentaire et le moyen mon ba mon le la ñu le curriculum bañ ko installé ba moyen bi y un am problème pour le ci curriculum bi véritablement. que curriculum pexe bi c'est je dis que. mooy euh, programme bo xamné façon jàngale la quoi bu bess bo xamné ne rek euh, euh, bokk la ñu li jangé won par exemple te sentir naa ne enseignants yu bari dañ ci am jafé jafe-jafe. damay wax légui ah. ñun acteurs dañu bari état bi daf ci am responsabilité bu mag parce que ba ñu terminer ba ñu le le curriculum bañ ko dugalee à l'élémentaire ba évaluer ko waroon na fek moyen bi paré nous ñoo absorbé les absorber li joggé élémentaire bu un ni ñom paré wuñu pour jël ñoñu ni am problème problème bobu nak, mo continue aussi nous ñu jàngalé à l'élémentaire ak ni ñu dans le moyen ak euh, yeneen cycle du ben du il y a une différence il y a un problème à ce niveau-là c'est un problème réel qu'il faut régler moi je suis dans le moyen mais j'étais dans l'élémentaire j'ai fait plus de 20 ans dans l'élémentaire mais où je suis dans le moyen li ma fekk ak ñun li ñu jàngalee dafa am yaay. si la déphasage quoi bu mag. boo xam ne bii war nañu xool lu ñu koy defaraatee. c'est c'est des problèmes. mais ça c'est l'état loolu état bi la xanaa wala. état bi am na ci wàll bu baax. mais ñun aussi ñi nga xam ne ñii ñun ñoom ñooy les professionnels de l'éducation dañ ci am aussi responsabilité bu mag parce que yu bari dañ koy wax mais loolu duñ ko wax.

Euh, c'est un programme euh, vraiment ambitieux. Bonjour les curriculum euh, j'avais même fait une émission avec Aziz Diop il y a deux ou trois années passées d'expliquer un peu sur le curriculum mais curriculum au Sénégal c'est en 1996 mais bonjour les, bi généralisation c'est en 2013 mais c'est un programme qui xamni ni li wax euh, point d'ancrage entre l'élémentaire et et le euh, et le moyen moo il y a am hiatus entre euh, élémentaire et ak moyen mais nous, à l'élémentaire les enseignants ni jang di curriculum bi c'est l'approche par les compétences euh, d'abord citation yi def bu ce sont des citations yo c'était pas euh, motivant mais l'enseignant avec la citation didactique bu c'est des citations motivantes et vivantes bu ko faits même après avoir administré n'est-ce pas euh, le programme ce qu'on appelle une phase de d'évaluation te évaluation boobu bu ko defee ba pare am soo une remédiation te remédiation par rapport à la la remédiation day tax mu mën euh, euh, corriger corriger par rapport à erreur erreur élève. yi te booy erreur élèves yi pratiquement nekkutu léegi euh, quelque chose de bu ñu culpabiliser parce que bu njëkk ba erreur dafa nekkoon lo xamé ni day day c'est c'est c'est culpabiliser élève bi et dañ ko doon même sanctionner mais maintenant avec l'erreur day permettre que élève bi enseignant bi mën di di di di di di remédier te remédiation boobu li ci djublu finalité bi moy lan moy c'est parce que on veut que une pédagogie de réussite moy finalité bi c'est la pédagogie de la de la réussite moy mooy mooy que on veut on veut que tout le monde que tous les élèves réussissent parce que beaucoup nous kenn am am am am am am parce que boo xoolee fautes yi élèves bi def mu am ay ñu remédier par exemple par rapport à ces fautes là quels sont ceux qui ont des difficultés ñu que ba l'élève surmonter ces difficultés là d'ailleurs am nga pédagogie de la réussite la réussite est étudiante pédagogie de maîtrise pédagogie de la réussite donc lool nak moo peut-être niveau au niveau de de de du moyen secondaire donc point bon c'est-à-dire qu'il y a point d'ancrage donc d'une part que programme yi est au niveau euh, des moyens secondaires dafa am difficulté difficulté mais d'autre part aussi y a ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication C'est mon mon frère mon ami Koumba programme qui est élevé. pour pour pour mais alors que euh, peut-être duñ def y a pas de recherche bo xool avec nos nos nos nos euh, nos nos tablettes euh, Android là xam ne quelquefois même avec bu ngay cliquer rek mu le la quelquefois des mots yi xamné sax ki loolu ça dérange pas les élèves donc yooyu war nañu xoolaat maintenant comment réutiliser maintenant ces nouvelles technologies là au profit de l'éducation donc war nañu xoolaat c'est une problématique que je qu'on va poser mais il y a d'une part aussi damay interpeller aussi n'est-ce pas au niveau de de de de de la famille mais même au niveau élémentaire on a constaté que résultat on est un peu satisfait c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait à 100% mais quand même de on a connu un, bon mais ce qui est bizarre au niveau des moyens secondaires, c'est que ce li mais surtout l'indiscipline des enfants parce qu'aujourd'hui, autorité Meng on a constaté au niveau des moyens secondaires des enfants qui sont indisciplinés des indiscipline amul le professeur même a des difficultés même pour asseoir ses ses ses enseignements apprentissage. Mhm. ça moom léegi indiscipline boobu lan ngeen yaakaar ni euh, responsabilité bi si kan la parents yi wala ndax école bi tamit am na si responsabilité yan jéego ngeen ni en tant que dirigeant yi fa nekk bu ñu ko tegee xëy na loolu dina tane. waaw gis nga gis loolu euh, indiscipline D'ailleurs, le samedi passé, j'avais une, euh, rencontre avec euh, euh, le CGE, l'AP et le, comité du quartier. Mais lui déplorait, moi, l'indiscipline des enfants au niveau des SEM. Mais la responsabilité est, partagée. Mais, dans le banane, euh, élève, vous agressez même un, professeur, on n'a pas le droit de l'exclure définitivement. Dès qu'il exclu 8 jours, il que vous mais il faut dessus les sanctions Madame, Mané, ne masla bi dafa bari c'est-à-dire que on a laissé trop trop laisser laisser faire laisser aller laisser faire c'est-à-dire que problème beau. il faut que nous nous cultivions. Ça c'est-à-dire qu'il faut que les que que que encore soit beaucoup plus rigoureuse au niveau familial aussi nous menons encore rééduquer encore nos enfants donc là, c'est important Et élémentaire nous on n'a pas ça peut-être peut-être à un à un degré que dañ surmonter

et l'État est interpellé il y a une part de responsabilité de l'État euh, Nous gi am na ci wàll ci problème yi nga Quand jot nañ ko euh, euh, soulever mhm. kon nag yéen lan ngeen di tontu ci li nga xam wax nañ ko nouvelle technologie mhm. muy tamit indiscipline bi mhm. système guana bi nga obligation scolaire jusqu'à 16 ans loolu lan ngeen siy tontu jërëjëf monsieur Mbengue je rek la toute première question que madame Diemba a posée malgré que a amul perturbation mais le niveau euh, a baissé après aussi c'est-à-dire il faut comprendre que euh, la classe de troisième comme la classe de CM2 c'est c'est la fin d'un cycle Rennes 2019 amul grève mais élèves examen ren l'élémentaire CM1 troisième aussi la même chose maintenant les années écoulées nous avons connu des années très très très dures de revendications 2016 je me rappelle donc est ce que a eu deux mois yu mat calculer lépp perturbation en perturbation niveau bi des sur le niveau des enfants plus qu'on avance est-ce que je me fais comprendre léegi perturbation en 2015 2016 mu perturbation 2017 tout terewul ba léegi élèves yi ñu ngi koy rek muy mais ñu koy pousse moom mu a un bon niveau bu ñëwee ba troisième nag lakin yi mu traîner yëpp moom mooy feeñ en fin de cycle il faut comprendre que troisième c'est la fin d'un cycle moins CM2 c'est la c'est la fin du cycle élémentaire moo waral nag malgré amul perturbation mais résultat on évalue le cycle le programme du cycle est-ce que je me fais comprendre Il faut ngay comprendre lu malgré que c'était une euh, euh, année soi-disant calme, mais malgré tout, il y a problème. Deuxième point, vais expliquer l'autre aussi, les enseignants, est-ce que réellement ils sont motivés pour faire le travail comme il se doit N'oublions pas que nous appartenir à des, organisations syndicales, il y a ce qu'on appelle la discipline syndicale. Même si tu es fâché, mais si ton, ton syndicat ne donne pas le mot d'ordre, tu es obligé d'aller à l'école. Mais quand ils vont à l'école, est-ce qu'ils travaillent comme il se doit il y a des enseignants qui, depuis des années et des années, courent derrière leur reclassement, derrière leur, intégration. Pas plus tard que ce matin, j'ai un ami enseignant, il rentre aujourd'hui ce soir pour Goudry. Mon petit soir, mais on se connaît à Goudry. Il m'a dit que c'est en 2000, depuis 2007 qu'il a eu son CAP. Mais son arrêt euh, vient de sortir le mois passé. C'est ce qu'il a retardé. Il a fait 17 ans à Goudry. Jusqu'à présent, il ne parvient pas à même gagner un poste pour venir pour rentrer parce qu'il est directeur il voulait gagner un poste de directeur mais xam nga c'est day tax boy boy compétir koo déjà il est dans la fonction il allait gagner facilement depuis 17 ans il court derrière 2007 nga am CAP 2019 12 ans après il s'est arrêté gagner. gagner. lenteur yooyu yëpp a day pousse euh, enseignant une certaine démotivation qui ne dit pas qui ne dit pas son nom il va aller à l'école comme il se doit pour que fin du mois mu dem fay ko de bu ñu mot son travail. Alors qu'au fond de lui-même, cette motivation qui était celle de nos, de nos prédécesseurs n'est plus, au rendez-vous. Lolo aussi, ça peut s'expliquer. Maintenant, l'autre point, les parents. On a dit que les parents ont démissionné. Mais pourquoi ils ont démissionné voilà lu démissionné Ils ont démissionné.

a donné mon enseignant bi moo tax mu daw kooku bu démé ba am 15 ans 16 ans bu qu'il amna ben comportement bi c'est parce qu'il n'a pas été éduqué comme il se doit. kon M. monsieur Diallo dafa mel ne état bi tamit euh, amna lo loo dal ne légui nak fofu la terminer. Hmm. c'est-à-dire comment faire pour renverser la tendance dafa naa madame wax na ko. tout hmm, hmm, tout à l'heure que chaque, parce que les responsables se sont partagés. Hein. Ah. que chacun prenne ses responsabilités. à commencer par les parents qui doivent reprendre euh, euh, leur autorité parce que beaucoup ont perdu euh, leur autorité. Qu'ils prennent leur responsabilité et continuent. Parce que les, maintenant, donc on le dise, hein, on éduque plus nos enfants, on ne fait que les, enfants. Euh, les élever. les daf leen ñu kii ba ñu les engraissé leen ñu génn dootuñu def dara seen bopp bi moo ils vont agir comme ñi may parce que les parents qui devaient prendre le responsable pour les éduquer n'ont pas fait leur devoir maintenant parents, bi bu deful lool

xam nga nag l' état est plus fort que tout le monde man dem naa ba à un certain moment un jour doon nañ ci waxtaan comme li ñuy waxtaan ma ne man daal bu doon man rek la dañuy reprendre daal ce que suñu parents yi doon def c' est à dire la la formation militaire obligatoire xale bu si am âge la ñu yóbbu la formé ji la yóbbu la bàngo xam ba nga ba ba ba tàggat la boo ñëwee di nga discipliné. ak li ñuy wax la pédagogie du bâton les châtiments corporels à l' école xale bi def dara ñu dóor ko xale xamul yàlla wante xam na yàlla waaw loolu su ñëwaatoon laaw sama petit sama frère sax sax ñu tuuma bon loolu aussi man man damay wax naan voilà léegi nag boo gisee nag loolu duñ ko mës a dindi disposition bon mu ngi si article 14 euh, de du décret 79 ou 65 alinéa 4 ñu ne le châtiment corporel est formellement interdit chaque fois mes élèves maîtres de Tamba loolu la ñu mën wax mais mu ci classe yu bari yi noonu man leen loolu moom bu leen xaar état bi dindi xam nga tax bu ko dindee nga doon doo par méga toj bëtu jàmbur parent bu la yóbbu police nga am parce que boo meree mer nga léegi nag noonu rek la wax mais tout le monde sait que le mot yar est confondu au mot yar les deux vont ensemble ñun ñii di leen tere à ah chez nous si l'enfant déconne man mii di wax yow mais nak sañoo wax léegi maître ñi ma gis ñi borom ñi di wacc ay ki ak fi ku si d'accord, deko ne dóoral koo koo ko wax demee lu ci am yow yaa jël responsabilité moo tax euh, on laisse euh, faire. jëmb dañuy jox kàddu gi euh, madame Thiam jërëjëf madame jàllo bu IEF bu Thiès monsieur Diallo jërëjëf madame Thiam am na lu bari loo xam ne évoqué nañ ko fi maanaam waxtaan nañ ci wante man dama lay njëkk a interpellé ci sa lu yaay ndax tamit ne nañ parent yi dañoo bàyyi seen loxo wala yow lan ngay répondre ci loolu avant ngay nekk petite enfance ak yooyu. merci monsieur Mbengue. damay. waaw merci monsieur Mbengue. vais revenir un peu sur l'inspecteur. inspecteur Diallo je crois que c'est bi sama frère bi di wax jara dama xaw je curriculum bi question est, malgré tout, curriculum curriculum en 80. Euh, en 1996. vingt en 2019 je crois que même bu y a un pont entre l'élémentaire et le avec euh, le moyen warul ne a pas ren une ni particulièrement ren dafa am loo xam ne perturbation donc normalement si résultat yi ren waroon naa gën au niveau au niveau euh, régional mais malgré la perturbation résultat est bas kon fofu nak ñu wara a delluwaat xel yi lan moko indi je suis d'accord avec l'inspecteur bu né euh système fin fin kañ la évaluer on évalue en fin de cycle si fin de cycle bobu nak bu dañuy cultiver la médiocrité muy dem di dem di dem du feeñ de ba jour boy évaluer ci lay doga a man nak sumay wax en tant que yaye Euh, dinaa ñëw ci responsabilité yi mais damay wax un ci loolu war naa tax ku nekk taxaw xool réflexion malgré quantum horaire bi respecté nañ ko kon boog li ko war a indi mooy kon ñii doon ñëw ba ci fin de cycle bi dañoo amul woon mérite u yegg si ci fin de cycle bi soo demee ba ci fin de cycle nag te amuloo mérite ca évaluation bi lañ koy xamee te maanaam amul pont entre l'élémentaire et le moyen mais su ma neexee en tant qu'éducatrice éducatrice préscolaire est ce qu'il y a un pont entre le préscolaire et l'élémentaire je crois que maillon c'est une chaîne la l'éducation. éducation ku nekk ci maillon bi daf ci war a jàpp nga war a xam li diw di def xale bi ñu may jox muy jóge préscolaire muy ñëw ci man élémentaire lan la xam lan compétence am lan capacité am lan la lan la jang, a ak loo xam ne war naa ko mën jangal jàngal maintenant ak ki doog a ñëw fraîchement kii élémentaire di dem préscolaire di jëm euh, moyen ka nekk moyen tamit war a xam produit bi ñu koy jox nan la demee je crois que loolu war nañ regle, régler tant que régler guñu loolu nag mom li nga bi ngay jot ki ngay jot sok xamul ay capacité am xamoo ay compétence am koy madame Tigida, dans ce cardinal je euh, vais interrompre kon yaakaaroo ni kon curriculum bi fi ko commencer waruñ ko commencé dañ ko commencé dès euh, ci petite enf kii préscolaire mi ngi ci petite mi ci enfance euh, madame Jëmb petite enfance ak élémentaire le commencé en 96 le commencé petite enfance ñun ci première génération bi ñuy formé ca la ñu curriculum bi préscolaire ñu ngi koy moom malgré ce que je dis là <laughs> ça ça, c'est vérifiable c'est pas appliqué dans toutes les écoles xam nga préscolaire femmes am une euh, réalité bu fa Si on est dans la région de Thiès si que né am euh, et quelques structures public bi c'est moins de 10% le public représenté nous n'avons pas assez d'encadreurs nous n'avons pas assez d'inspecteurs pour inspecter. Donc dans le privé, nous balma, mais est-ce que nous appliquons le curriculum Parce que le curriculum de femmes Je crois que l'émission Taïbi nous, nous permettre de voir le curriculum Voilà. Ce si bu fekkee ne xale yi suivant ci école yi ñu programme beaucoup de programme bi ñuy jëm bu ñu élémentaire peut-être bo amé classe hétérogène ah lu nekk ngi ci biir ba en plus damay revenir man ci formation des enseignants gis nga le problème <laughs> man toujours dama naan ñun la rek c'est nous les enseignants nous on ne maîtrise pas le curriculum c'est ça la réalité la réalité mooy suñu waxantee rek en face ku nekk xool sa morom am nous ci ñu bare ñoo xam ne maîtriser wuñu curriculum ba tey ci curriculum bi euh, da ngay xool man parfois euh, daf may dal xalé yi dañuy ñëw par exemple ñëw pour bëgg nga expliquer leen benn affaire mais yow tu ne te retrouves pas ñoom ci seen programme. ci système d'évaluation bi c'est que ni ñuy poser mhm. nekkatul problème ba nga xamone yow ñu jox la problème nga ñëw di ko résoudre xam nga approche par les compétences la c'est-à-dire que lu ne ci xalé yi la yëf yi mi ngi ci xalé bi xam-xam bi ne ci xalé bi yow da nga koy yee c'est-à-dire que da nga koy dugal ci situation nga fexe moom mu génnal boppam ci situation bi bokkul ak loo xam ne dañ la ne papa a cultivé son champ xaw ma la nag lan yow nga jéem réfléchir nag c'est des situations imaginaires loolu la moo tax yow même pour yow nga mën encadrer sa dom. ci buñ ko joxee ay exercices d'évaluation yu mu a def da ngay am problème bu fekkee ne yow jàngaloo curriculum loolu la euh, pour nag euh, la les enfants indiscipline bi sévir dans les écoles du rek l'élémentaire Dès commencer ci préscolaire bi. Mmh. day commencé ci préscolaire bi waaw dangay dóor xale mu taxaw wala nga gëdd ko mu taxaw riposté waaw parce que amuloo droit dóor sax da ngay gëdd rek wax leen war mu riposté taxaw parce que won nañ ko ni kenn amul droit wax kook moom ci benn ton bi loolu nag moom je crois que toujours damay waxaat rek nañu commencé xëy na ci plateau bi bu ñëpp defee ni yéen ku nekk déglu. tendre l'oreille Xeyna on va régler beaucoup de problèmes il faut que ñëpp dugal ci seen loxo ñu yar suñuy dom déglu nañu ndoy ban du ma def seen publicité radio bi mais émission boobu ba mu ne bu len xolone seen whatsapp dom yi di ngeen gis musiba le lendemain rek ben inspecteur de l'éducation woote ne ci guddi gi la xol téléphone domam mais xawna xam xawna xaw syncope il y a un problème. Les médias qui ont développé. Le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes tous les fêtes de notre culture. Nous savons ce que nous avons C'est parce que nous savons notre culture. Nous sommes tous les fêtes de notre culture.

Oui, ils ont désisté au dernier moment voilà parce que nous avons fait fi vraiment. preuve palpable. que la démission systématique des parents. nous si vous avons wax affaire, affaire école euh, doo parce que famille Bounek, sa trésor sa trésor moi say doom homme bu lu nit ki am lu gën a am importance si biir si biir société bi mooy xale mooy mooy sa mooy sa doom mais sa doom kan lañ ko confier mooy institution bi mooy école te doom boobu kan lañ koy confier mooy jàngalekat alors si mi fii kan la ñu gën a soofantal mooy jàngalekat fonk ñu jàngalekat comme inspecteur lu mu waxee sax moom inspecteur dafa wax ma presque il représente presque l' état man dafa wax ma nekk ah état bi su doon dëgg lii ba ñu gis yoon. les enseignants ils sont démotivés. Il y a revendication yi engagement état bi le gouvernement bi ay plan de carrière dég exemple euh, bi euh, monsieur Ba Diallo euh, ay avancement reclassement ci hein? jusqu'à présent accord réuni signé depuis le 30 avril 2018 jusqu'à présent on est situation de tête est-ce que loolu mënul yak wala xel euh, enseignants qui euh, ci année scolaire biñu 2020 jëm euh, parce que nous, ñun responsable syndicaux yi fu toll calmer les yi ba mënatuñu dañu doon wax sax ñu vous êtes vous êtes corrompu on ne vous comprend pas. parce que, ils ont des problèmes. et un syndicat c'est quoi c'est défendre les intérêts matériels et moraux des militants. mais actuellement les enseignants sont démotivés Ils gis nga ñun bu qu'ils ñun temps ñu école normale. man bu ma génnoon école normale ma toogee ma mus a toog ni salle des nii ma yore ma dem fayeeku ma dem fayeeku ma ñëw ma toog salle des di def sama bilan ma ne ma lii laay def lii lay def lii laay def lii lay def euh, ba léegi ma am benn doyen bu ñëw après prof bi ñëw mu tomb ne ma mais mais monsieur Koumba Sala yu def nii ma ne non damay def bilan balaa may dem banque. <laughs>

alors c'est démodé donc ce qui fait que maintenant les enseignants sont démotivés maintenant les suñu tasee ils ne parlent plus de pédagogie Ils sooy wax pédagogie dañ lay lay comme un extraterrestre pédagogie qu'est-ce que wax soo pédagogie il te demande quoi mon acte ça sama reclassement ça me rappelle mais ça c'est inadmissible il a inadmissible récréation nga dem salle des profs nga dem bureau nga jangali kat fo tassé ko ño tassal mu nek inspecteur mu ne qui que ce soit so la la la mu ma sama carrière dafa plomber alors alors avant les enseignants étaient presque les ñooy c'était la classe moyenne aujourd'hui les presque les enseignants ont basculé dans la pauvreté Harald Bell, le 25 le 26 nga dem nga wër banki ñu fay fek jàngalekat kat ñu commencé di rodé est-ce qu'on a viré ou on n'a pas viré c'est le mot on a viré ou on n'a pas viré a viré le 5 a viré nous. mais c'est la catastrophe les familles vont voler en éclat tout ça parce que les enseignants sont démotivés Dans les gis un diplôme déjà établi, formation initiale bi moo donc la formation pendant combien d'années des volontaires et des vacataires qui n'ont subi aucune formation pédagogique initiale ils se sont débrouillés dans le tas ba ñu amal diplôme état bi formé état bi formé mais ils se sont battus pour avoir leur diplôme. Ils ne sont pas un diplôme, nous les Ils Nous avons leur diplôme, quel monde intégré intégrer Nous avons 10 ans, 20 ans, nous avons des retraite. On ne peut pas les reclasser. Parce qu'à ce rythme-là, on a presque 50 000 qui, attendent. Et ils avaient dit chaque année, on va faire 10 000. Mais nous, pas Aujourd'hui, aujourd'hui, année 2019, 10 000 on est à 3500. 500. année, année, dëgg la euh, euh, man euh, ci lolu premier évoqué hein? lolu xana da fay yàq li nane la qualité de l'éducation. ça mais de lolu parce que jangale kat nit la rek nit nit nit rek la quelqu'un qui a des problèmes qui a des soucis kooku mënul mais parce que même état bi parents d'élèves bi amuñu intérêt confier leurs enfants à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas bien dans sa peau et dans sa tête vous prenez votre trésor vous gagnez votre école mais Coco il a des problèmes sur mu un des problème dépense un un problème électricité un problème avancement un problème rappel mais Coco, c'est la carcasse qui est là il ne te produira pas un travail sérieux nañu wante dëgg. voilà Je dama bëggoon questions, euh, il question a ni aussi suppression ce premier ministre bi c'est une revendication il y a impact. voilà donc est-ce que est-ce que lui monitoring parce que loolu moy moy avant premier ministre mu ngi dafa melni que état bi bëggul mu dox. état dafa melni parce que premier ministre mu don fi mo moo pousser état bi ñuy avance bi mu avance au moins chaque mois mu woote monitoring bi nit ñi to ñu waxtaan ni syndicaliste yi wax quel est le problème là où il y a les goulots d'étranglement le premier ministre automatiquement déjà, déjà je suis chef ministre il mu joxe instruction si ñu avez ñu ministre tel mais finalement le finalement ministre yëpp dañu doon conseiller, nga ñëw conseil de nga ñëw rencontrer premier ministre ñu ne yow yow sa secteur mooy mooy traîner mais mais maintenant bougé depuis que nous avons le premier ministre il a il n'y a plus de monitoring maintenant les gens sont restés en l'état xoolal commission a am commission d'avancement mm-hmm. commission d'avancement daaw bu nit ñi avancé nañ léegi dafa am bénn commission bu bees bu nar a am dafay commencer au mois de novembre commission boobu bu amoon daaw ba léegi acte yi génnagul te benn commission mu ngi commencé waat encore alors lenteur administrative donc c'est c'est inimaginable donc loolu yëpp loolu yëpp day démotiver moo tax euh, les enseignants sont démotivés école da ngay dem école c'est parce que le cœur n'y est pas. Mhm. et alors avant suñu papa yi suñu nijaay mais mais amul suñu doon jàngale ci vois ouverture des classes mhm. mais da nga doon que da ngay kontaan nga di yëpp pas baisse bien habillé cravate yu bees dàll yu bees pas ay baisse mais maintenant c'est impensable. Pour euh, euh, problème yi problème yi les ah. waaw léegi man li ma bëggoon laaj euh, ñoo ngi jëm ci euh, Ligne ñu fi soulevé yëpp est-ce que yaakaaroon ne année scolaire bi dina jaxaso également benen question euh, taw yi daanu temps yi Thiès amna école yu bari yo xam ne ñu est-ce que les écoles dinañu paré ngir mëna démarrer euh, su école tijjee le 3 octobre par exemple ni ko bëggé monsieur Beng, da may permettre ma dellu si waat rek c'est vrai que ni bu ngeen seen émission bi mu yéen koy diriger mais bu may insister sur l'élémentaire ba ma ñëwee seen dama ne casquette enseignant instituteur là parce que si ñu les résultats du CFE qui baromètre euh, le niveau des élèves au niveau élémentaire euh, l'inspecteur ne me démentira pas que Thiès ville y a barre de 60% était à 75%. Il y a 75%. mais il y a barre 60% hein élémentaire. Mmh. Ça dit que donc, les résultats sont bons à l'élémentaire. Donc, où est le problème Si je dis que au niveau moyen, problème bi que am problème là, parce que nous, je suis def instituteur ba suis dans le moyen gis ni def ci ci moyen bi aussi dans l'élémentaire gis déphasage bi vie. il y a un problème le véritable problème c'est vrai que les gens wax wax mais ils n'étaient pas préparés à accueillir les élèves de l'élémentaire c'est un problème préscolaire bi def le curriculum l'élémentaire def le curriculum les enseignants comprennent on ne dira pas que les enseignants de l'élémentaire n'ont pas encore compris le curriculum l'inspecteur maîtrise réelle bi dans tout secteur pour dem comprendre mais la majeure partie des enseignants de l'élémentaire comprendre nañu xam lan mooy le curriculum maintenant la preuve les résultats ont suivi en ci école 100 de réussite et pourquoi ces élèves là arrivent au moyen ils perdent le le le niveau donc le problème encore une fois c'est au niveau du moyen il y a un problème là-bas l'indiscipline dont on parlait aussi euh, euh, au niveau moyen au niveau élémentaire il y a la discipline te dama aussi am lu ma relever dafa am ñoo xamné dañuy wax ci éducation ci lu bari te xamuñu ko on nous dit qu'il y a plus de la morale il y a plus du civisme jàngale tuñ ko mais c'est pas vrai ça loolu amul mu ngi koy jàngale dañ balaa ñuy wax da dañ koy xam nan avons mëna morale éducation morale éducation civique éducation sanitaire ci ci mais sens da ngay dégg partout un peu partout dans la presse ñu nan dañ ko dinn ci motax xalé yi nangam dans le développement durable. d'accord est-ce que euh, yi nga euh, l'état des lieux ci euh, école yi nga xamné ne nawet bi yàq na leen ci euh, mën na euh, yeexal tamit ubbite école. bon yoy mom vraiment c'est c'est c'est des problèmes franchement c'est des problèmes parce que man j'ai fait la brousse yàgg na ci jangalé na ci abri provisoire xamna li abri provisoire day impacter réellement sur le quantum horaire dañuy tok bu mois de novembre ñuy dogu a on aura une on a une école à à deux vitesses ñi ubbi di jàng. ñii dañuy ubbi dañuy toog novembre am na ñoo xam ne sax man son première année fi ma nekkoon décembre la sama sama classe pare. ñoom ñoom ñoo njëkk a tëj aussi ndax nawet biy ñëw. ñoo njëkk a tëj aussi. inspecteur euh, nga jël kàddu gi rek euh, léegi euh, bala ñoo tàggoo ci suñu émission yan mesures ngeen jël ngir école yi nga xam ne.

Si ñu désherber pour nga nous ñu futteeku pour désherber y a des problèmes le directeur parfois il est obligé de faire des jeunes pour ñu désherber ko cours pour boy au moins pour nous traverser pour dugg cette classe alors que le siège, quand il s'agit de prendre les postes il dit continuellement man maay secrétaire bi man maay trésorier maay doon depuis longtemps on leur demande de renouveler le D'accord. accord euh, dinañ ñëwaat yow légui euh, directeur xamna dañ lay interpréter rek yow concept ubbi tey jàng tey ak condition yi yëpp yow lan nga ko gisee ndax dina mëna apt ci année bi. Wa merci jëm ñu revenir un peu sur euh, sur le problème de ubbi tey jàng tey kooku nekkatul léegi concept bu vide de nekk na réalité légui. parce bo xolé comme ni ko inspecteur waxee léegi baroon na ay jafé jafé ci école yi mais on a pris des initiatives parce qu'il euh, ne faut pas attendre que nous euh, euh, en tant que responsable d'établissement yow yaa a projets ses propres initiatives Il ba xam ndax fii désherber même si au niveau de Thiès la mairie nous appuie pour le désherbage donc en tant que responsable d'établissement le yaourt, c'est euh, la personne qui a des herbes, après ils vont essayer n'est-ce pas de de réagir donc il faut déjà avoir am initiatives, initiatives initiative donc à de jàngatee bo réalité mais je wax toujours aussi que euh, wax au niveau du du CDD mi amone à la préfecture que aujourd'hui l'éducation est une compétence transférée mais nous vraiment l'appui des cultures locales au niveau n'est-ce pas de l'éducation C'est ce ko nous avons au niveau du CDD d'une part nous xolé mais culture locale nous rek né dañuy dañuy def des kese ak alors que quelle man dama ko wax je le dis haut et fort hein. moo ñu ko may mais compétence décentralisée yooyu bëggoon nañ cee ñëw voilà su ko defee waa ñu euh, temps bi mooy bëgg a jeex voilà c'est ça c'est ça euh, jox kii rek mm. madame tia mom tamit mo addu ci lolu tuuti merci beaucoup d'accord voilà je crois que ça sama prédécesseur dafa ma marché sur la langue parce que dama bind les collectivités locales rek mu wax ko je crois que euh, war nañu interpeller dans nos structures ñun ci petite enfance même désherbage il yenn a maire bi day jël euh, engagement parce qu'il il ne s'agit pas seulement de désherber mais de désinfecter. parce que presque bi dañuy soxla désinfecter mais il y a beaucoup d'écoles il euh, faut que l'école mette la main dans la poche pour désinfecter désherber am euh, maires yu ont def publicité mais je voudrais vraiment euh, faire appel ci collectivités locales à aider à désinfecter suñu établissement et ak désinfecter waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi. merci. noonu waaw bëggoon nañ nag mu gën a yaatu mais temps bi moo ñu ko mayul ñu ñuy signaale que ñi temps bi ñu amoon jeex na xanaa euh, di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xamante ni wuy si woon ngeen ci suñu woote di leen gërëm yéen tamit mbokki téléspectateur ak internautes yu ñu doon suivre di leen jaajëfal di leen dig daje ci yeneen jot.